Rendez-vous le 6 janvier Youssou Ndour ak Super Étoile Boubs affaire bu exceptionnelle la première grande sortie de la star planétaire Youssou et le Super Étoile au 6 l'exceptionnel spectacle du Nouvel An entrée 10 000 VIP 20 000 ña ngay jaayee billets yi RFM TFM ak ca Cosaan réservation 76 673 20 20 ou le 76 673 21 21 CD bi soog a génn nag raxas bet si disponible na TFM disponible na RFM disponible na à la fois ci standu King FM 99.4 am am di dox man maa ni woon Youssou nduur ak super étoile fu mu génne gën yow Youssou foo génnee gën leen le gëneur ku ne bëgg laa gën te mënu laa gën moo taxit rendez-vous Bangok Paris toj Dakar dafay toj par la force ci début d'année 2018 bi le 6 janvier. le super étoile au grand complet xale yu sañse sañse yu fashion yor oto yu fashion ñëw ci soirée bu nara a fashion. Euh, faram-fàcce nag ni ñu koy defee àllarba bu jot ñu dikk si ak yéen euh, bii nag nekk faram-fàcce bi nga xam ne moo njëkk ci atum 2018 euh, ñuy sant yàlla bu baax bi nga xamee ni ci 2017 bi yëpp ànd nañ ko ak yéen ci émission yu bëri ci faram-fàcce ak télévision Futur Média di jégalu ci lu bëri loo xam ne rek jaar na ci ci ay rëcc-rëcc wala ay njuumte gannaaw jégalu boobu itam ñu leen di déwénati di leen baal wax di leen baal di ñaan at mi nga xam ni moom la ñu nekk muy atum 2018 Euh, su namee ñaaw ni kolof di wax rek yàlla na mel ni ren yàlla na mel ni daaw ndax itam daaw xëy na fekkee nañ ko ak jàmm tal nañ ko euh, kon ñu ñaanal ñi nga xam ni tam ñoo ko fekkewul 2018 bi euh, bu fekkente ni ci ay loxo la ñu nekk yàlla génne leen ci bu fekkee itam ci ay tolof tolof la ñu nekk yàlla teggil leen ko bu fekkee ci biir suuf jiituñu ca barsàq itam yàlla suñu borom maanaam teroo leen ak li nga xam ni mooy yërmandeem loolu daal la ñu bëggoon jagleel suñu ay mbokku téléspectateurs ci atum 2018 Euh, bi nga xam ni nekk nañu ci euh, ci noonu nag euh, numéro bi ci jëkk ci faram tey ñu am mbégte di ci recevoir président du Wade moom mi ngi bokk ci parti démocratique Sénégal président du Wade ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Papa Ngagne di nuyu sa téléspectateur yëpp. Mm-hmm. di nuyu Seydou di nuyu mbokk Sénégal yëpp di leen wax déwénati. jërëjëf ñu ànd ci itam ak le ministre porte-parole du gouvernement monsieur Seydou Guèye ñoo am moom itam recevoir ko ci numéro bu njëkk ci 2018 ak Faram Facce monsieur le ministre ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne di la gërëm ci woo bi nga fi bi ngi ñu fi woo di nuyu suñu mag Doudou wadd bi yàlla dogal ñu bokk plateau bi tey wara a waxtaan. Mm-hmm. Euh, di ñaan yàlla ñaan yi nga ñaan. Mm-hmm. pour jàmm ci réew bi ak. Euh, lu baax li nga ñaan ci nit ñi moo xam ñu nekk ci kaw suuf di dox ak ñu nekk ci suuf te jiituñu yàlla na ko yàlla nangu te barkeel ko amiin amiin amiin yàlla na nu yàlla defal sutura ñun ñëpp amiin amiin euh, gën ñu xiir ci boppam jërëjëf loolu nag ñuy ñaanal jullit yëpp jërëjëf ak mbokk yi nekk ci àddina yëpp merci beaucoup euh, kon émission bi dañu koy tàmbalee rek xam nga le président de la république def na discours à la nation ni mu koy amalee at bu jot ci fin d'année mu janoo ak askan wi yëkkati discours jëmale leen ko euh, discours bi nag yaakaar naa tënk ko du yomb mais daf ci am ñaari baat yoo xam ne rek dégg naa ko bu njëkk bi sax maa ngi ko njëkk déggee ci premier ministre ci assemblée nationale muy le Sénégal de tous le Sénégal pour tous président de la république dellu siwaat ci waaye itam dafa am beneen misaal boo xam ne indi na ko ci discours muy guy gi nga xam ni garabu guy la nekk mandarga Sénégal mu jàpp ni guy gi waroo rëy ba yaakaar ni euh, maanaam guy gi euh, yaa ko doole wala war ngaa néew doole ba yaakaar ni amuloo wàll ci guy gi loolu itam di dellu ci dialogue boo xam ni wax na ni mi ngi tàllal loxoom euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy classe politique bi ndax jàpp na ni li ñu bokk muy nation moo ëpp li nga xam ni moo leen xàjjale. président Doudou Wade déglu nga discours bi man loolu laa ci tënk rek président tàllal leen loxo ne leen li ñu bokk muy nation bi mu ëpp solo li nga xam ni moo ñu xàjjale. pour yow tàllal loxo bu sincère la wala sincèreul nan nga gisee tàllal loxo boobu ci biir discours am. Pape maa ngi dellu di nuyu mbokki téléspectateurs yëpp di rafetlu émission bi di ci toog ak suma rakk Seydou géey pour ñu waxtaan. Mhm. parce que dafa nekk d'abord symbole la ci émission bi ñu daje. Mhm. faram fàcce. tas li nga xam ne moom la ñu war a seet ci li ñuy liggéey mais mu nekk aussi émission bi nga xam ne moo jiit ci 2018. Mm-hmm. may ñaan man 2018 lu mu naxari naxari naxari dàq 2017. Mm-hmm. ci mm-hmm. bépp boor nag. lu mu naxari naxari yàlla na ko dàq. amiin parce que yàlla mën na lu ëpp loolu. amiin yàlla nañu ko yàlla defal. discours yi am na problème yu bari yu ci nekk mais problème bi nga wax duma ci yàgg. da nga wax ni président woote na dialogue. Mhm. président dialogue politik wala dialogue avec son opposition wala boo concertation électorale bi ministère de l'intérieur bu mu ci doon rek ñaar yi ma jëkk a wax président amul ci amu ci taxawaay bu mat. 2012 mhm. bi mu jëkkee ak si ba toog. traque de bien mal ak ki la indi ak coow li mu indi barka démb après mu ne li ko war moom jëfam ak taxawaayam mooy ju jël opposition ne ko à sa plus simple expression mm-hmm. mooy dina leen wàññi ba ñu toll ni fa tarfatay yi loolu la doxal di ko doxal di ko doxal di ko doxal ba 2016 mm-hmm. mu xëy suba woote jalook ñu bari ne duñu dem parce que président de la République bu àggee ba fu mu àgg keroog woote sëriñ yi wax ñëpp wax mu woote dialogue ñun ñu bokk ci ñi dem wuyu ak nag contexte yi bu ñu mënoon toll suñu bañoon day gën a metti que ñu ñëw parce que dañu war a ñëw bi ñu ñëwee ñu wax suñu xalaat ci li fi passé ci référendum bi mu am dialogue bu metti entre moom président de la République ak ministre de l'intérieur ñu wan wax ñu wane parce que am na ay mots yoo xam ne il faut ma wax ko. Mhm. mais dafay may jafe maanaam façon bi nga xam ne moom la ministre de l'intérieur doxale te ñu koy wax booba booba ba ci référendum bi. Mhm. gis la mu jur. te loolu moo jur encore li jëw ci législative yi mais ak seguñ ci président jël fa sax benn décision. Mhm. ne jël na ne datu tey bi. daf koy màggal daf ko bës. yi nga xam ne dafay bokk ci calendrier républicain bi comme ni trois 3 av 4 à 3 4 avril bokkee mm-hmm. Mm-hmm. ne tudde na ko journée de dialogue mm-hmm. ne bu fa jógee ci loolu ñuy waxtaan daf leen di bàyyi ministre yi après moom dina woote chefu parti yi ci ni mu ko mënee mënul waxtaan ak ñëpp mais dina am ñenn ci ñoom bu mu waxal gis nga ba ma ko waxee ba léegi dara phrase parce que le président ni croit pas ba ñu génnee aussi wax nañu gis ma ne leen ma gëwuma ko. li lay wan ne gëm na ko gëmuma ko réglé na benn problème bu mu waroon réglé benn xal bu nekkoon ci loxo mu permettre ko une semaine après mu déporté ko. muy Karim Wade waaw. bi mu ko defee ba pare léegi muy dox di dox di dox ba ñu war a doxal li ci référendum bi. Mhm. dara loo xam ne lii am na concertation ak opposition bi am na. ba ñu dem ci législative yi te élection yi fi passé avant moom te mu nekk ci biti ñun ñu nekk ci biir moom dafa exiger woon un certain nombre de choses notamment benn nit jàmbur boo xam ne bii moom mooy yor élection yi ñu nangul ko ko mu demandé audit foncier ñu nangul ko ko ñu bokk ñun ñoom la communauté internationale mmh. l'union européenne ñu def ko ñoo am élection yu paisible ñu continuer defu ci dara mais li gën a grave pour woon leen def euh, gëmul woon sax li muy wax président de la république. Mm-hmm. dafa bi anniversaire bi ñëwee passé na ay fan dañ ko dañ ko ko fàttali <laughs> président bés bi mu jàppoon ba mu jotee talu ko fàtte na ko diggante boobu def fa dara mu xëy nag voté ne dialogue mm-hmm. bi mu voté dialogue bële passé ci bi Serigne Cheikh génne àdduna wax nañ ci keroog ñu ne bu fekkee ne dafay bëgg dialogue na ko jox autorité religieuse bi mu def ko xam nga bu ñu demee ba àgg foofu mooy ñàkk wóolu nekkatul suñu diggante voilà merci beaucoup donc par conséquent président dañuy jàpp ne li muy wax waxu waxu naxaate la d'accord Seydou foofu mu daaneele te mu argumenté ko nag aussi. Mhm. franchement parce que avant mu ñëw ci conclusion bi ci naxaate argumenté na ko man benn rek laa si jël muy journée dialogue national bi nga xam ne defee woon nañ ko ci palais de la république. Mhm. mu waxoon moom président de la république ne sax daf koy euh, daf koy samp. da daal di ins euh, euh, def maanaam mu bokk ci li nga xam ne ci suñuy suñuy suñuy pàttaliku lay doon te waxatul lu ci jëm loolu mu la ci jox exemple. ak li mu jàpp ne du nutu dialogue firnde yi mu ci jox yëpp lan ngañ ci mën a indil. jërëjëf Papa Ngagne jërëjëf euh, président Doudou Wade <clears throat> dinaa ci tontu tontu yu confortable mhm. tontu yu yomb te leer te yëpp dafa am ci slide dafa am fu mu tegu bi ci jëkk mooy da nga dugg ci discours bi mhm. nga jukk ci ñaar ma bugg ci mottali yeneen ñaari ponk rek door a ñëw ci dialogue bi mhm. ponk bi nga xam ne am na solo trop mooy jàmm ji nga xam ni président daf ko woote. Mhm. parce que loolu moo moo ëmb jalo ji jàmm ji mhm. ci biir Casamance foog naa ni lu ñu war a mën a sànni. Mhm. loolu am solo sànniwu ko kenn sànniwu ko sax jéego. Sénégal kay bu ñu nee ñoo ko bokk. vraiment sànniwuñu dara jàmm kenn du ko sànni. ñaareel bi. moo di it. réew mi fi mu toll. ci ay jéego ci wàllu dundinu nit ñi ak wàllu ni ñuy doxalee suñu réew ci wàllu économique. bokk na ci te foog naa nañ ci ñëw ci biir waxtaan wi. nga jukki ci dialogue bi nag ñu war cee tontu euh, président Doudou Wade moo ko dégloo euh, impression bi may am mooy ñun homme politique yi dañu foog ni dialogue ñun kese la. Mm-hmm. parce que bu fekkente ni dialogue bi da nga ko yemale rek ci li parti politique yi war a waxtaanee du conception wu dialogue national bi président de la république oote ba jël journée du 28 mai def ko journée du dialogue. Mm-hmm. parce ci fànn yu président Macky Sall wane na taxawaayam ak gëm-gëmam bi mu gëm dialogue tey moo ci mujj ci conseil des ministres communiqué conseil des ministres biral na encore une fois woote bi président wu de la république woote waat pour dialogue gën a suuxal sunu démocratie gën a mën dem ci élection ci wàll bi nga xam ne politique yi ñoo ko seq donc dialogue national ci gis-gisu président makisal dafa am fu mu tegu tàmbali na ko d'abord ci li ñuy ooyee concertation mhm. sur l'avenir de l'enseignement supérieur mu nekk waxtaan woo xam ne ay sénégalais comme ñun yu nekkul ci parti politique mais nekk ci réew mi di liggéey pour njëriñu réew mi comme ñun niñ koy defee mhm. ñoo toog daje xool ñoom seen waxtaan naka la ñuy mën a génne mhm. ay mbir yoo xam ne président dina ko mën a matal mu nekk yoon bi nga xam ni tey jii ci lañu teg suñu enseignement supérieur donc loolu jiitu na sax ñuy ñu koy digaaleeg ñun parti politique. Mm-hmm. ci secteur u enseignement éducation nationale waxe noonu. ci secteur u syndicat yi dialogue moo jug moo jur. pacte de stabilité pour la croissance et l'émergence mu nekk digaale mhm. bu pouvoir bi digaale ak syndicat yi mhm. ci naka la ñu war a traité doléance en tout bari na munta ñàkk dina gën a tàng ci janvier bi eh, munta ñàkk même bu fekkente ni dialogue bi am na ci préavis mhm. gouvernement du ragal préavis d'accord amul problème gouvernement da ciy indi tontu parce que ak ak yelleef bu constitution joxe la e, égalal s'il vous plaît kenn du ko d'accord ba nga jógee ci dialogue boobu jur pacte de stabilité et de croissance secteur santé dialogué nañu revue annuelle conjointe bi ñu mujj def secteur privé wane na niveau dialogue bi mu am ak ministre de l'économie et des finances. Mhm. ba ñu tënk juróom-ñaar fukki poñ ak ñeent. yoo xam ne moo rot ci seen ay waxtaan. Mhm. te ñu war ko wutal jeexital. Mhm. donc loolu moom mooy gis-gis bi ñu am ci dialogue bi ñu ñëwee nag ci wàllu parti politique yi. parti politique war a daje. am ñaar wala ñetti question yoo xam ni moo nekk ci seen table. benn bi aju ci xayma élection yi fi jaar. Mhm. Doudou wax na ko am nañu ay jafe-jafe ci référendum bi am nañu ay jafe-jafe ci élection législative yi. Mhm. première résolution bi génn ci seen jotaay mooy ñu d'accord ci benn commité de suivi ak ku ñuy wax benn facilitateur. ñu tànn benn ambassadeur koo xam ni jàmbur la bokkul ci benn mhm. parti muy Seydou Nourou Ba Ba pour mu jiite ko ñu am lu ñu d'accord it parce que euh, kii bi muy wax audit bi muy wax mais pouvoir bi def ci d'accord mhm. bu ñu neexee ñu ñëpp ñu ànd bu neexee opposition bi moom it mu wuti partenaires internationaux yi bailleurs yi nañu ko defee woon démb mhm. ñu defewaat noonu audit bi d'accord waaye li nga xam ne mooy yokku waxtaan wi bi nga xam ne moo nekk ci diggante parti politique yi mhm. war nañoo nangu ñu ñëpp toog ni élection yi fi jaar ak ni mu jafee organiser ci nombre de candidats yi ci nombre de coalitions yi ci bokk. Mm-hmm. bu ñu toogul waxtaan xëy na ëllëg. dinañu toll ci jamono joo xam ni dinañ fi bëgg a organiser élection. d'accord merci donc li nga xam ne moo ci ëpp solo. Mm-hmm. ci argumentation bi Doudou Wade joxe. Mm-hmm. nee na président Macky Sall gëmul dialogue. ak moo ko gëm. parce que léppam ci doxalinam jaloog la waxtaan. d'accord seet naka la ñuy déggoowee. bu ñu dégloowee. ñu door a def. maintenant dafa am naar ñoo xam ne il ñu wax ko aussi bu ñu ootee waxtaan. du tële bu ñu waxtee waxtaan du ñàkk lu ñu def. ñu toll foo xam ne su waxtaan amul. góor gi dafay jël responsabilité am. jël loi yi nga xam ne ñoo ñu permettre ñu organiser élection yi ñu dem ci. donc loolu responsabilité bi. état opposition. d'accord mooy ñu bokk waxtaan. déggoo am mhm. consensus. bu bu loolu mënul am nag. nguur gi jël responsabilité merci beaucoup président Doudou Wade dafa mel ni kon yaa déggul dialogue bi ndax euh, boo dégloo président euh, boo dégloo le ministre Seydou Guèye argument yi mu lay jox euh, ci front yëpp dialogue indi na fa solution donc boo amee problème peut-être ci classe politique bi la te mi ngi tegu ci yoon boo xam ni mën na indi solution kon dafa mel ni yow yaa ko déggul nan nga déggee ay argument am. waaw dama bëgg ci man duma tontu ci loolu ci question yi nga xam ne moom nga posé. d'accord. mais bu Seydou génnee ba affaire il faut moo wax ko benn affaire. Mhm. Seydou nous sommes d' accord sur la paix sur la Casamance mais paix waxtaan moo koy indi. Mhm. paix bu am rek waxtaan la. guerre bu am waxtaan mooy indi paix donc gëm nañu paix sur la Casamance gëm nañu aussi jéego yi ci def. Mhm. le feu est sur la centre parce que du ñu def comme ñeneen ñi nga xam ne noonu la ñuy defoon bi mu xewee ci Casamance pour la première fois. te socialiste si réew mi yor réew mi xam nga lan la Robert Sagna wax mu ne c'est une jacquerie ay xale yuy fola ay pétard yu ndaw la du ñu def loolu dañ leen di accompagner ci loolu parce que nu sommes pour la paix pour la Casamance problème yu économie yi am na dinañ ko seet mais am na lu ko jiitu économie li ko yor mooy d'abord ay réalité ci li ñuy wax ñaata moo ci am lan mooy xaalis bi ah. lan mooy gerte gi wax dëgg d'abord lu mm-hmm. dëgg mm-hmm. ay lu exact loolu bu ñu ko réglé wul du ñu réglé problème économie kenn du ko bâtir sur du faux. Mhm. donc loolu dama koy dama koy jégal pour alors li nga wax ci ay euh, dialogue te dialogue tudd waxtaan ci ñun li nga ma wax yow xam nga Seydou nu mu tudd kebetu <laughs> lan la lan la université bi indi la dialogue qu'on a fait mhm. notre université nos universités son arrêtées ñu ngi nekk ci situation bi gën a compliqué ci àdduna boole ci li ngeen ñu waxoon ci université defu leen ci dara président ngi rappelé di ñu wax naan université di Sine Saloum dina ko ubbi dans le premier trimestre de de 2018 xanaa président day fàtte président mënu fi naax amul 100 ans annoncé na ko pour 2015 2016 def ci xaalis defaat ci xaalis premier ministre ñëw barka démb nañu que dafa am com dafa am conflit ak entrepreneur bi mooy commencé woon na dafa taxaw parce que yoon bi ngeen jël moo baaxul. mais dinañ ci dellusi mais lan la lan la pacte de stabilité bi jur. lan la problème de la santé jur lan la travailleurs yi jur lan la ak enseignants yi jur lan la jiboo a indi yàlla na ko yàlla xaaree àjjana ci dialogue bi ko séenee woon lan la innocence tab jur au conseil territorial lan la indi ci dialogue rien il y a ngeen bëgg ko ngeen bañ ko nous allons vers un blocage blocage boobu moo tax ñu nekkoon ñeent autour de la table sur les contestations électorales pouvoir opposition indépendant ak na non aligné une partie de l'opposition dem ñenn ñi dem ngeen dese ñeent mhm. donc d'ailleurs sax si seen waxtaan da ngeen dem bay toog di wax naan ñu ngi koy woote mais télé wuñu kenn waxu ne télé ngeen lu ci di télé ñu ngi koy wax mais du du dañu ragal kenn waxul leen da ragal ne vous donnez pas ce complexe de ragal ak tële il faut da ngeen foog ngeen jël affaire bi ci buu bi ngeen ko war a jëlee ñu defar réew mi parce que ñun ñoo ko bokk li ngeen fii bàyyi dafa am ñu koy continuer te am nañu responsabilité xam ne ñun bu ñu doon dellu si fekk fi jàmm ñu gënal mais bu ñu defoon ni ngeen defoon ni ngeen waxoon bu ñu nanguwul élection yi nanguwuñu audition dinañu génn ci medd mi bu ñu reyee wala ñu rey fi ànd ñu yóbbu leen tepp yi. mais nag nangul ko dialogue sectoriel bi aussi secteur yi ku ci ne dialogue na te jox na la exemple yu clair loolu nangul ko loolu aussi bu fekkente ni dialogue bi am na ci secteur yëpp mooy dialogue mooy indi dialogue national aussi. Oh, attends xam nga dialogue. dialogue bi nangul ko loolu aussi. xam nga dialogue national. bu fekkee ne président dafay am dialogue national wala ñu bëgg def assise nationale dafay concerner tout le monde en même temps mais bu ko jëlee secteur par secteur. dialogue bi ak lu mu mënti dem ak kuñ ci mënti woo ak nu ñu mënti toll problème bi yëpp pour seet nu ñuy organiser réew mi la. Mm-hmm. te kii organiser réew mi ñooñu moom politique yi la. Mm-hmm. ñoom la constitution bi jox ñu jël suffrage yu nit ñi. Mm-hmm. pour jiite assemblée wala jiite machin donc à la alin. ñooy xoolu loolu. donc foofu bu réglé wul rek dara dootu réglé. tout à fait. donc mm-hmm. dialogue bi. kébetu la. d' accord vous vous parlez avec vous-même. d' accord d' accord léegi. Euh, euh, le ministre Seydou baal ma bala ngay ñëw ci loolu nga jëlaale suma question. parce que dafa am lu mu abordé moom te dikkuñu ci. mu aju ci euh, euh, taxawaayu président de la république ci tas opposition bi parce que waxoon na ko ci ci introduction euh, loolu dafay est ce que dina dina dina tax ñi ngeen di tàllal loxo. te ñu fare ci kuje gi ñii ne ci kaso bi ñi nekk bitim réew dinañ ko jàppee euh, tàllal loxo bu sincère. non xam nga li xew. président de la moom dafa may wax yoo xam ne saa ko waxee opposition bi gars yi te day foog ñoom rek. Euh, président Doudou comme comme par exemple comme bu ko président waxee day ñu tiit leen yooyu ñu tiit. ah bon non président Doudou Wade moo la gën a xam ni politique boo yoree. pouvoir wala nga nekk ci opposition kon président da kaf bi muy wax loolu. soo yoree pouvoir wala nga nekk ci opposition. massification yokk sa dayoo moo la jik parce que kuy dem élection ëppi xob moo la jik lu duwaat moom ko gën a xam waaw mais nag tas euh, tas mais nag tas tas opposition. jigul démocratie jigul opposition opposition opposition moom jagul dem jigul démocratie opposition opposition. opposition de ak démocratie mu ànd. ci démocratie. waaw parce que fi ñu jaar ñun. Mhm. ni ñu représenté woo ñun suñu démocratie. Mhm. mooy démocratie bu ànd ak opposition mooy démocratie bu ànd ak alternance. en tout cas yàlla na fekk nag. en tout cas ban opposition ngay ban opposition ngay wax tey opposition ngay wax ci Sénégal na fekk opposition boobu. ban ngay wax tey ci Sénégal nekk cadre boo xam ni. am na xam-xam bu fay bàyyee ko. ah d'accord ci projet boo xam ni am na njëriñ ci askan d'accord non naa tontu président Doudou encore ci li mu wax. naan kebetu. naan ñun rek ñooy wax jàpp naan ci wolof kuy kebetu wax yow kenn mooy waxtu di waxtu waxoo kenn mais ñun dañuy wax ak nit ñi. te di jege nga dof sax loolu. te jege nga dof. waaw euh, donc dialogue bi li ci président Macky Sall wax duma ci dellu si waat. Mhm. responsabilité wu opposition mooy mu taxaw. ne damay jaloge wala jalogewuma am na liberté boobu waaye kenn du nangu nga ñëw ni man damay jaloge waaye li ma wax moom mooy mën a am li tubaab di wax venir au dialogue pour n'entendre que l'écho de sa propre voix loolu du dialogue kooku kenn mënu koo nangu li nga xam ne nag laaj nga ci enseignement supérieur dama ciy jukki benn rek parce que jàpp naa ni secteurs yi ñu waxal yëpp secteurs yu am solo lañ ci Sénégal te man am naa considération ci ñoom ba xam ni ba ñu ñëwee taxaw xam nañu ni ci Sénégal fi mu toll ak liñ ci war a def réew mi toog waxtaane ko moo gën mhm. tey jii boo bëggee jël ñëpp secteurs yëpp toog di ko waxtaanee doo am méthode doo am jeexital ci li ngay waxtaan boo jëlee enseignement supérieur nga ni defuñ ci dara mun naa la jukkil ñaar waxuma ci ci bilan de ci dialogue ci dialogue li mu jur la wax non li mu jur la wax li mu jur waaw ci li mu jur joxe na tegtal ci fi ñu war a jaar ak ni ñu war a defee ok ñu jàpp ni ci wàllu alal mhm. am na loo xam ni war nañ ko def mhm. ci infrastructure yi d'accord ñu ne donc euh, université yi seen ay amphithéâtre mhm. yooyu yëpp jar naa defar d'accord ñu defar yu yeneen war nañu yóbbu sunu formation enseignement supérieur ci secteur boo xam ne dañuy régler problème bu yàgg. te loolu dialogue bi moo ko réglé. dialogue bi bokk na ci li validé. d'accord tegtal yooyu. d'accord c'est-à-dire orienté tey jii enseignement supérieur. vers la professionnalisation nga xam ni ku génn ci université yi am métier boo dem moom mooy waral ñu am. ay bërëb donc lan moo ci lan moo ci rôle vision président ak ak euh, vision ministre bi nga xam ne moom lañ ko confier muy enseignement supérieur boobu. mais enseignement supérieur bu fekkee ni dialogue moo définir vision vision président mi ngi. tegu. waaw ci jël ni Sénégal bi ñu war a jëm. Mhm. dafa war a nekk une société du savoir. d'accord société du savoir boo xam ne dafa ànd ak. Mhm. ay formation professionnelle yu spécialisée. très bien mu am jeexital ci contenu. Mhm. li ñuy woowee curricula université yi am aussi jeexital. ci li ñuy woowee institut supérieur d'enseignement. très bien professionnel ngay ISEP. mu daal di feeñaat. ci beneen secteur buy formation professionnelle ñu am ci ñaari modalité indi ay certificat de spécialité yoo xam ne xale yi bu ñu duggee ci daara yi dinañu am métier ci diiru juróom benn weer ci métier yi nga xam ne réew mi moom la soxla. ba tey ji ci conseil des ministres am na lu mu lancé. Mhm. financement wu 5 milliards 400. pour ñu def projet boo xam ni. waa secteur privé non dafa am importance. mais dialogue secteur privé damay bañ ñu tàggat ci leneen loolu lépp waaw ci dialogue la génn. d'accord c'est important comme ci dialogue la génn c'est important. Euh, ma ma terminer waaw terminer s'il vous plaît. ba ñu war a lancé. programme boo xam ni. dinañ am occasion yoo xam ne ku ci ne weer bu jot. Mhm. war nañ la mën a jagleel quarante mille francs mu nekk allocation. monsieur le ministre ci concept boo xam ne nga baal ma. formation entreprise <laughs> d'accord ak école. merci beaucoup donc euh, président Doudou Wade euh, ni ko le ministre waxee man maa la ciy laaj mooy moom buggul dialogue boo xam ne bu fekkente ni yéen dialogue mooy da ngeen di ñëw rek ni wax na Khalifa Sall génn ci kaso bi na Karim Wade jógee Qatar. na lii am na lële ñoom boobu dialogue mënuñu ko dégg aussi dafa mel ni yéen loolu moom mooy li mu wax ni doo ñëw ci dialogue sa sa bëgg-bëgg ci dialogue bi imposé leen ko am na yuñ ci tudd muy yooyu ma la wax. noonu muy seen ay argument xam nga dialogue bi lan moo ko indi. Mhm. dafa amoon compétition match. ñoom ñu nekk arbitre de touche. Mhm. nekk arbitre central. def ci lu leen neex ci élection yi ñuy passé élection yi ñu organisé Seydou. Mhm. nga tuddee ko léegi ci sa waxtaan ay jafe-jafe. defu leen jafe-jafe. dangeen ngeen saboter élection yi. non duñ def loolu. mais vous l'avez fait sciemment Seydou. je vous regarde les yeux dans les yeux pour vous le. naa la tontu. Mhm. dama lay bàyyi nga daaneel rek ma tontu. 18 am foo xam ne fii amuñu ay bulletins am ñu amul seen carte d'identité ngeen def ci 52 milliards ñu nekk dakaar mënuñu voter man fi laa dëkk fii laa yaroo fii laa màggee am fi carte d'identité teel ko am. mësuma tardé élection ngeen jox ma carte d'identité ma dem ci biir fi may nekk fi ma dëkk sama koñ ñu ne ma doo fi woote dëkkuloo fi xamuñu la da ngeen ma porté préjudice man comme de Sénégal ngeen def loolu da ngeen ñu ameel àq dans ces condition bu ñu waree toogaat da ngeen ñuy wax lu leer c'est pour cette raison li ñu leen laaj bariwul Seydou li ngeen ñu laajoon en 2011 ñu may leen ko mais am leen ngoru delloo ñu ko. ah loolu tontu na ci nee na loolu koy amul problème. <laughs> oh bu dee bu dee bu dee euh, ci fichier bi la nee na bu dee ci fichier bi après mu jeexal man maa loolu. waaw fichier bi ci problème. bu ngeen ko bëggee même bu bëggee yéen seen ay partenaires. uti moom moo ko wax waaw moom wax ma ne. Ah. Seydou xam nga ne ñun duñu uti partenaire. gis naa ni ngay dawee question bi. partenaire bi yaa koy uti. daaw ma de. yow yaa yor réew mi. yaa yore ambassade yi ñi fi nekk dañu leen accrédité auprès du président de la République. ñu hmm. ngeen ne dem leen ngeen uti ay ay partenaires ñun noonu la ñu koy utal. juste une proposition rek duñ mais ah, mënul nekk. d'accord mais maintenant. Ah, non non non Seydou mu ci teg dafa wax ne. Mm-hmm. parce que réer nga ma ci loolu. waaw nga wax ne yéen li ngeen def. da ngeen siif élection yi mais ci loolu naka la ñuy mën a demaat ci même condition ci même match. yéen a moom terrain bi yéen a yore électricité bu ñu leen dugalee bi ngeen fay lamp yi. waaw mais lu indi concertation bi Seydou ko ba jiite pour loolu ñu mën ko régler mais concertation bi mënuñu ko régler noonu du loolu moo koy régler du noonu lañ koy régler concertation bi bu ñu ko régler d'abord dañuy wax kan moo koy jiite kan la ñuy tànn ndax dañ koy tànn ñoom rek wala dañ koy waxtaanee bi ñuy jël Majim Ndiaye di ko ko dénk. en 2011 c'était sur concertation. ñun ñaanuñu leen dañu leen li ñu leen lebalewoon. fay leen fay leen ñu loolu. d'accord ah. sama question s'il vous plaît. Mhm. sama question dafa jëm. ci dialogue bi. dangeen di indi seen ay proposition na Karim Wade ñibbisi na Khalifa Sall génn kaso. pourquoi yooyu argument ci ci ci dialogue boo xam ne eggagoo leen ci ngeen di ko annoncer comme ça. mais mais amul lu ñu mënoon annoncer ci dialogue bi jaloog bi jaloog la Abdou Diouf dafa awoon dialogue pour ñoom ba ñuy ñëw dañuy dialoguer la. ba ñuy ñëw dañu indi ak seen situation ne dañu bëgg benn ministre boo xam ne bi ministre de l'intérieur du yor élection am nañ ci droit surtout revendication yi ñuy wax. ay mais pas ay prisonniers nañ leen génn ci kaso bi. ma ne prisonnier bu ñu génn ci kaso ku ñu exilé benn prisonnier baa ngi fii dinañ ci ñëw ci kanam. benn bi ñoom ñoo ko déporté. ak seen complicité. bu la neexee. waaw bu la neexee nga xamul tax. waaw fa ñu fa mu toll woon. seen complicité fa mu toll woon ci kaso bi. Mhm. génnoon ci kaso bi moo gën mais nag ngeen am ci responsabilité aussi. werante woon ah, loolu d'accord kon c'est bon. toutes mes responsabilités. d'accord très bien mais dama ne. Mhm. kii xeex ba am responsabilité ci tijji ki tëjul ci yoon. moo ko am te léegi encore am nañu ay preuves. ci ay déclaration moom ak premier ministre que la ñu doon wax taxawul. donc loolu. d'accord pour ñu dem dialogue. il faut que mu am ay conditions yu leer. d'accord il faut que règle di jeu yi. Mhm. kan mooy arbitrer fan la ñuy defee match bi kuy ñëw. ku dul ñëw naka la ñu régler ko ba mu leer parce que amatuñu confiance ci président de la république. ah c'est dommage donc ah loolu doy na waar le ministre Seydou Gueye. alors exemple bi mu ci joxe. ci élection yi ñu génn. waaw dama ciy ñëw yoo xam ne jafe-jafe nga ko tuddee moom siif la ko jàppee dama ci ñëw maanaam siif mooy mooy mooy vraiment këppatal élection yi jël ko. loolu moom noonu mu ko gisee ba tax amatul confiance ci président de la république ci dialogue am ak ay élection loolu nag doy na waar bu ñu ni Grand Doudou waxul dara lu ñu mënoon jàpp lu ñu mënoon nangu bu ma dugaatee ci exemple am bi mu wax match bi mais ani bal bi match il faut que mu am bal aussi. lan nga bëgg wax bal lenn moo am dinaa ci ñëw léegi. Mhm. li nga xam ne war nañ ko mën a jàpp. dialogue bi dafa war parce que démocratie démocratie senegal moo ko soxla. Mhm. élection yi am nañ ci ay jafe-jafe ci organiser ko. d'abord ci liste dafa bari dafa am loo xam ne aussi il ñu fàttali ko yi ba ñu dajee ak. opposition rek nga jàpp non non xaaral dinaa ñëw damay joxe benn élément bu important ba ñuy waxtaan pour dem ci élection yi ku jéggi yépp ak pouvoir bi dañu d'accord ni fichier bii ñuy tabax buñ ci yeggee ba 4 million d'électeurs. Mhm. mën nañ ko voter bu nu eggul ci 4 millions d'électeurs inscrits ñu jël fichier bi fi nekkoon kooku point d'accord bu foor la woon. d'accord ci la ñu génnewaat ay mesures yoo xam ne ñun ñëpp ci d'accord yokk commission d'inscription yooyu yëpp duma ci ñëwaat bi ñu paree inscription yi bind nañu ci sénégalais lu toll ci 6 millions 200 et quelques mille. Mhm. ñu dem ci élection législative yoo xam ne dëgg la am na ñu voté wul. parce que jotuñu seen carte mais ñi voté ci élection législative bi guleet ci législative bu Sénégal mu am lim bu toll noonu bu voté mhm. kooku war nañ ko mën a nangu te booy seet jafe-jafe yi ñu am est-ce que mën nga lim juróomi commune guleet aussi ñu dégg ci nombre de hors de mission yi ñu ci dégg. waaw guleet la aussi ci Sénégal. ci donc loolu man mënuma cee. ah non guleet la aussi loolu nangul ma ko parce que guleet ñu dégg ko ci. mais aw firndeem. d'accord man aw ma nga ko. te bu ñuy lim tey. xam nga booy saboter processus électoral booy saboter élection mën nga lim sax juróom wala fukki commune yoo xam ne da ko saboter waaye fi ngay wax daf ñu saboter muy Touba foofu dóor bi ngeen ñu fa dóor kooku mënuñ sàcc élection amuñu sax 25 pour cent à Touba malgré difficulté yi. bu ñu doon saboter dinañ ñëw ci dëkk bu mel noonu wala yeneen yi xaw mel noonu ngeen ñu fay dóor dóor yu mel noonu bu ñu amee capacité saboter war nañu mën a am capacité bañ ngeen gañe ñu. donc wax dafay yanu maanaa tey ji lépp lu ne di jàmbat mhm. ci fichier bi wér na ak wérul ci élection yi war nañ ko amal ci anam yi woote nañ ci taabal bi nañ leen teg dërëm ci peroog ñu werante ñu xool lépp lu ci baax ñu indi ko benn xam-xam doyul yëpp lañ soxla mhm. parce que kenn moomul réew mi ñun ñoo ko bokk mhm. dialogue bi ñuy woote nag dañu koy def parce que moo gën ci ñun ñëpp d'accord moo gën ci réew mi. d'accord may ñaan encore une fois. Mm-hmm. ñu bàyyi suñu pétition de principe yi. di installer une fausse crise de confiance. Mm-hmm. loolu rek moo yàq dialogue et puis du ci nguur gi rek am ah. dem ba ut ñun bu ñu nekkee ci opposition. Mm, d'accord léeg ñu woo ñu alibi ak prétexte yi ñuy jël. mooy problème mu confiance. alors que mm-hmm. une question de responsabilité. Doudou dara mun laa tere boo ñëwee ci dialogue bi. nga ne lii ñu wax ànduma ci du ma ko valider mais au moins. xam nañu li ñu wutale ñu toog ñu ñu faram fàcce ko. d'accord bañ a bàyyi chaise bi vide ah. d'accord naa ni loolu moo gën dialogue. Mm-hmm. da ngay génne li nga xam ne mooy consensus ngeen d'accord. Mm-hmm. ngeen xool dissensus li ngeen d'accordul ñu jéem ko def ay points de progrès bu fekkente ni Sénégal rek a tax ñuy wax. Mm-hmm. Oh, Seydou dama la bëgg wax ne que yàgg nga ci réew mi. intellectuel nga def nga politique baar nga ci parti yu bari ba day nekk au pouvoir. ñaari parti laa def. d'accord ah. la. partie de la réforme ak bii. barewul waaw waaw weddu ma loolu xam nga ñaar rek doy na. ëpp na sax. waaw déglu ma la dama ne ne dialogue politique bu fekkee ne rek expérience doon na ci doy. Hmm. expérience PDS doy. c'est par le dialogue que nous avons pu obtenir beaucoup de choses dans ce pays ba mu permettre partie yu bari mën a juddu ba tey ñu mën a am li ñu am. di voté ba am ñaari alternance mhm. yéen ngeen ñëw nag yàq ko. yàq ñu dara da ko saboté. non non te yéen ko tey yoon bi yëpp pendant deux ans ñu ngi leen wax Abdoulaye Daouda jàll bi fi mu ñu baaxul yaa ñuy wax 4 millions directeur c'est vrai mais ñaata ñoo amul quand tu as construit 6 million 6 million 2 millions et jotuñu seen carte ba tey jii ñu toog Seydou vous n'êtes pas capable de terminer le cartes. yéen a ngi renvoyer les anciennes cartes en av pour avril 2018 encore. oui parce que da ngeen tële. non tëlewuñu. lu tax monsieur laaj ba may ma rek ma laaj la benn question Doudou. carte d'identité ma tontu la laaj la benn question ma ne. refonte 2006. ma ne ñaata carte lañ joxe ban tool lañ joxe. bu ma yóbbu ci Blaise Diagne. non Blaise Diagne defal nañ Ngalandou Diouf. non non defal nañ <laughs> arrêtons ça bu ma yóbbu ci Ngalandou Diouf ak Blaise Diagne Carco soxlawu ma élément dama ne. Mm-hmm. man aw ma fu ma wootee dañ ma dàq. Mm-hmm. Sénégalais laa fii laa juddoo. waaw. voilà ce que voilà le tort que mooy tey bi. ah mais c'est loolu argument bu patent la moom mooy témoin oculaire bi. mani ci carte d'identité. mani ba xaral s'il vous plaît. Ah, mu terminer après ma ñëw. terminer s'il vous plaît ma terminer ci et puis. Mhm. ngeen indil ñu ay promo inscrits li fi gars yi daan def ay ordonnances ngeen dellool suñu ko encore. alors si lan ngeen bugg yóbbu ba la passé boo leen buggee situation bi ñu nangu ak benn Sénat boo xam ne bi non seulement deful liggéeyam. mais président de la république le jour de la Korité moo leen jox instruction ne leen def leen nangam mais quand même réew mi ni ngeen ko yoree tey. d'accord ak ni ngeen ko moomee ñun tamit dañ ci def suñu deret dañ ci def suñu sang dañ ci def suñu xaalis dañ ci def suñu temps donc ni ñu leen ko joxe woon ci élection yu mel noonu ak élection législative yi fi passé te ba ngeen ko ba ngeen ñëwee pour pour dellu ci gannaaw. pour ñu danse ko ñu ngi fekk majorité ñu nangu leen ko mais Seydou li ñu leen di ñaan bariwul lañ leen lebaloon fay leen ñu lu toll noonu. waaw président de ci loolu rek lay dikk toujours Seydou. alors li ñu ñaan ci ci li ñu leen ñaan euh, jafewul. jox leen leen seen ay carte d'identité li ñu ñaan woo leen leen ci dialogue bi ñu xoolaat fichier bi dem ci ay élections yu claires. li ñu ñaan mais seen àq ak yelleef la ñu jox leen ko ñoo ko bañ jël. ah ñoo ko bañ jël lii ñuy wax yëpp. mu nekk ay points yoo xam ni nit ñi mën nañ ci sukkandiku. Mhm. bu ñu toogee ñu régler ko. d'accord alhamdulilah c'est ça la réalité lan ngeen di xaar ci toog. c'est ça réalité je termine également ci yeneen. deux ah. deux points. ah mais dama koy laaj rek mu wax ma lu ñuy xaar ci toog. aussi ñu ah. mën a dem. problème bi yëpp foofu la féete. waaw ah. lépp lu ñuy wax ci rajo yi. di ko ci baa ngi nii ñëw leen toog ñu def ko loolu kay. ñëw leen ñu la réalité. président lan mu leen tere toog. prenez des dispositions tout de suite. ñoo leen di topp eh, gis nga lii nommez nommez nous un ministre chargé des élections d'accord c'est ça un des points accepté tout suite par le président de la République parce que lu mu wax génn ci bàyyi ko mu terminer bàyyi ko mu terminer ñaari point ngi noonu waaw ñaari réaction yi. mais am na lu mu lu mu sërxal léegi de. non mais non sërxalu ma ko. dama ko kon mi ngi noonu leer naññi non non mani euh, ñi ñuy déglu ràññee nañu bu baax. Mhm. benn bi. day dekk rek Doudou Wade day dëggal la ma waxoon rek. bu fekkee da nga ni damay bëgg ñëw waxtaan waaye li ma bëgg rek moo fi am doo waxtaan ak kenn. kook sa doom bi gën a tuut sax boo ko bëggee def ak moom du sotti. donc ça dépend ci doom yi. d'accord ñaareel bi. doom yi wuute nañu bi ma yar benn jur yi du benn. ñaareel bi. bàyyi bàyyi mu terminer si ñaareel bi président. Mm-hmm. mooy bu ñu jàppee benn facilitateur. Mm-hmm. dénk ko mbir yi. dialogue dafa am mécanique ak dynamique du yaa ma ko gën a xam. jaloo yi ñu fi mos a woote ñi ko seq di ay parti politique yem dignité mhm. ñooy ñëw waxtaan bu ñu waxtaanee ba tënk ñu yóbbu ci président de la république mhm. mu joué rôle arbitre am ni ko fi président Diouf defee woon ba ne duma ci changer virgule ci li nga xam ne mooy consensus bi ressort yooyu am nañ ko vertu yooyu am nañ ko bu ñu toggaatee war nañ ko mën mais bu fekkente ni dañuy njort un point un rek laa ci ragalaat di ji jiiñ point di njor te mënuñ ci indi firnde bu wér du ñu dialogué d'accord xam nga c'est ça la léegi dama bëgg nag ñu ñu aborder yeneen question s'il vous plaît vraiment ñu aborder yeneen affaire dialogue bi aborder nañu ko bu baax dama bëgg ñu dem ci beneen beneen point bu am solo xam ngeen ni tey ji ñi ngi euh, doon dikkaat ci procès Khalifa Ababacar Sall euh, ba ñu renvoyé waat ko le 23 tey le 3 lañ ko doon àtte waat mu nekk procès boo xam ni euh, Seydou li ñu ko jiiñ maanaam li ñu taqal procès bi sax laay wax mooy procès bu tegu ci wàllu politique maanaam koo xam ni dafa am yéene ci réewam ñu di ko faqastal pour mën ko tëj ci kaso bi noonu lañ jàppee procès bi renvoyé waat nañu ko lan la la inspiré procès xalifa Sall bi nga xam ni euh, dugg nañ ci bii mooy ñaareel bi yoon ñu koy renvoyé. alors nekk na <clears throat> mbir mu bare coow. Mhm. mu bare coow te xewee ci mbedd mi. ah bon ah oui parce que coow li yëpp ci mbedd mi la parce que un procès du ci tali bi <laughs> yomb na nag nga tëb ni procès politique la yomb na te bare na ci Sénégal foog naa ni toll nañ ci réew mi foo xam ni euh, bu ñu deful ndànk ñun ñuy politique ak kàddu ñuy yëkkati dafay mel ni kuy homme politique rek yoon waratul mun jot ci yow parce que heure bu yoon jotee ci yow rek ñu ne la ngay politique a tax wala la nga bëgg a def a tax donc nañu bàyyi xel ci loolu d'accord def ndànk tuuti foog naa ni immunité homme politique amul boo xam ne warul dem ci justice. Mm-hmm. bu ñu xoolee ci liñ ci jot a xam te lépp tukkee ci nag liñ ci xam ci li ñuy dégg ci média yi ak di ko lire ci journaux yi. ci mbedd mi ah. ci mbedd mi li nga xam ne ñi ñu ko seqal moom la ñuy jiiñ. <laughs> Euh, war nañu mën a wala ñett yoo xam ni. Mm-hmm. baax nañu fàttali ko askan wi. d'accord foog naa ni bu dee mbiru politique. procès mm-hmm. politique. day fekk nga nekk ci activité politique. wala jëf ji lay jiñ nekk jëfu politique affaire politique man dund naa ko dund naa ko bi parti démocratique sénégalais nekkee au pouvoir ma am leader politique boo xam ne dafa def déclaration politique ñu jàpp ko ci base déclaration politique yooyu mu def tëj ko ci kaso bi tëj ko ci kaso bi mhm. loolu moom révolution orange révolution orange mhm. ak Abdourahim ay mais bii mhm. lan mooy kàddu gi service yi nga xam ni constitution bi ak charte réew mi. d'accord jox na leen àq ak yelleef pour ñuy saytu. Mhm. ñoo def benn saytu daal di jàpp ni ci li ñu gis. Mhm. am na ay problème ci gestion financière u benn kuréel. muy ville de Dakar. d'accord ñu ne liñ ci jàpp. waaw laaj nañu ubbi information judiciaire. ñu jël information judiciaire. ubbi sant pour càmbar ko. service yi nga xam ne ñooy. service de police. d'accord ñu càmbar. Mhm. ci li yoon maye. Mhm. lan lañ doon set lañu koy jiiñ nee nañu système mu facturation la ak yooyu dugguma ci waaw ñu jóge ci loolu waaw juge d'instruction yi mhm. du Sénégal parce que fii dañuy jaawale souvent statut magistrat ak fonction yi ci wàllu indépendance ak yooyu juge yi am na loo xam ne noonu la ñuy taxawee toujours juge d'instruction ils instruisent à charge et à décharge maanaam bu amee lu lay jiiñ boo ñu amee lu ko firnde ñu téye ko bu amee lu ñu la jiiñ amuñu firnde bi ñu teggi ko. d'accord ñoom ñu jàpp ni ah li ñu jàngate mbir bi am na ay sart ci suñu code yoo xam ni nee na ku def lu mel nii. mën nañ laa jiiñ lii. d'accord léegi Seydou loolu loolu loolu mooy charge bi. waaw mais décharge bi daf fi nekk. te mhm. déchargé wu ñu xalifa. mooy dafa nekk candidat député loi électorale nee na génn ñu ba ci kaso bi. Mm-hmm. loi électorale dëgg ah, ah si si si si non ah d'accord loolu loolu Seydou. te bu ñu duggee ci loolu rek ma delloo si fii loo xam ni. waaw mais Seydou léegi. na fi nañ dem ci leneen nañu d'accord mooy mbirum Modou <laughs> noonu la demee woon mbirum Modou moom je vois que dafa mel ni dañ ko waxtaanee ci seen biir. non ku toog rek loolu la ma bëgg a indi. mais loolu buñ ci bëggee rek di dugg ci s'il vous plaît dinañ ci ñëw. nañ ci dugg ci loi électorale ah. ni dafa génne bi mu nekk mu nekk candidat parlementaire am mu jël ay caution pour am liberté provisoire ñu lànk mais Seydou yooyu nga xam ni moo tegaloo d'habitude loolu moo tax affaire bi tax benn bi may laaj muy caution muy caution mënuma ci àddu parce que kooku cëru juge bi la ci boppam moom moo xam ci li yoon wax. waaw lan moo mën a mat caution. d'accord ak naka la ñuy nangoo caution ak caution ci ban anam. waaw mais jurisprudence yi dafa bari nu ñu nangoo caution dañ ko dégg ba tey bi liberté la man duma ci dugg. Ah, ci wàllu député bi. Mhm. ak immunité bi. Mhm. biñ ci tolloo. waaw ba ci biir procédure. parce que mhm. damay fàttali ni kii nga xam ni moo nekk député. Mhm. ba ñu koy jiiñ duggaguñ ci campagne. ba ñu koy téye di ko yoon di ko téye. nekkul député. d'accord ba mu nekkee député. ba procédure yi ñëwee ci ni ñu ko war a defee. ñu jaar ci assemblée nationale. d'accord mu voté levé immunité bi. ñu war ci mën a yeggali procédure. d'accord merci beaucoup donc loolu moom dafa leer nañu président man ni ma ko abordé ak moom ndax bokk nga ñi ñiy gis bëtu politique ci mbiru xalifa yan argument nga ko mën a wéralee wala moom nga ko mën a dindee. xam nga moo ci nekk moo tax muy wax naan buñ ci ñëwee ci dina ñëw ci modis. modis man maa koy indi ci modis mhm. man maa ko ci dugal ko ci. d'abord ISEP ak ISEF daf ci wax sànq ma bëggoon la Seydou. xam nga yenn saa yi comme ni mu Sénégal pour tous da ngeen di plagier rek boo demee ci PTIP 2012 2013 2014 yaa ngi wax ICEF yaa ngi fay fekk ICEP Institut supérieur de formation professionnel sur l'orientation des garçons et des filles dans des filière technique mm-hmm. avancé woon nañ ci xaalis 2012. maa ngi wax sénégalais yi ñu xool ko. e bi ngeen yokk ci suuf rek benn tere mu nekk ngeen bindi e bi mu nekk F ngeen bare ko benn la rek. parce que ñi ko defoon. ñi ko defoon ak ñun. ñoo ko def ak yéen dama ci doon passé ma dellu maintenant. li nga wax ci problème mu IGE ne dañuy demande information judiciaire tu en prends la responsabilité man du ma jël responsabilité parce que liiruma rapport bi. mais am na ñu ma ne dañu ne nañu revoir le système. de décaissement de la dépense diverse. ah d'accord. Mhm. d' abord ma préciser lenn. ñu mhm. bari ci yéen. gis nga ne ngeen di wax na dañ ko jox trente million de francs par an ci caisse d' avance déedéet caisse d' avance instrument la pour génne xaalis mais xalifa lañ ko jox dépense diverse la boo demee ci yoon yi passé ñaari ministre day dinaa leen interpellé fii fii ma toog Souti Touré ak Moussa Ndoye bi Mamadou Diop waxee ba pare war nañu wax naka lañ doon contrôler caisse d'avance bi autorité politique moo ko doon contrôler loolu moo am maintenant lan moo tax mu nekk loolu ku nekk digis na diggante 2009 ak bi xalifa yoree mairie bi li mu ci daj ci ay pakatal amul kenn ku ne gisu ko. waaw pakatal yi maa ngi def xaalis maa ngi def nangam. non pakatal ba mujj gi. Mhm. ñu ne ko bi ñu commencé chanter la transhumance. Mhm. depuis Kaffrine ñu ne ko da ngay ñëw Khalifa ne ñëwuma. Mhm. ñu ne ko da ngay ñëw ñëw mu dem 2009 aw koteem gañe leen gañe ñu ñoom ñun mën nañ ko mais ñoom mënuñu ko muñ Mbaye Ndiaye moo ko ne président de la république bi ma nekk suma ministre d'état di wax ci trop nee na am na doole bu nekk pour nga fekk si ko. boo ko fekkee su sa dara du neex wante bu ci demee kaso ñoo xam ne moo tax. te maa ngi lay jëgal leen Seydou. je parle à tous les maires du Sénégal. seen dépense diverses. ak seen secours ku leen ci topp jàkk ci maire bu nekk cent cinquante xalifa. dafa nekk une coutume te moo wax la nag encore benn affaire du point de vue finance publique am na ñu wax ne bu fekkee ne décaissement la par ay bons fictifs. wala ay factures plusives te nga xam ne dans la généralité pratiquement pour régler des problèmes d' intérêt général la am na jurisprudence yu yoon nangu ne nangu nañu loolu mm-hmm. mais li am ba am mooy Khalifa dañ ko nekk ay jaay sa parti mu bañ ne du ma jaay suma bopp Ousmane Tanor ak Macky Sall yeew ko dugal ko kaso mm-hmm. alors pourquoi nu ñu bëgg ko comparer ak Modici mais benn lañu bu ko ragal mm-hmm. Modissi a été mis en prison par votre acolyte Ousmane Tanor Dieng et son équipe comme ci nga bëgg a ñëw. nañ ko waxtaanee dinañ ci ñëw bu baax. mais xalifa mi itam génn ci woon. waaw attends nga ne. xalifa aussi génnu ci woon. xalifa xam nga lan la ci doon. Mm-hmm. Mm-hmm. kan moo nekk ministre chargé de la communication de de représentation à l'Assemblée tey. Mm-hmm. kan la woon. du Mansour Sy booba xalifa xalifa la ah, ci jamono. waaw léegi nag. avec les institutions xalifa moo fa nekkoon je suis d'accord. xalifa xalifa fa nekkoon comme ministre chargé des relations avec les assemblées. Mhm. mais kan moo ko nekk tey. Mhm. xanaa ka fa nekk tey moo ko yóbbu xalifa le ministre des chargé de relations avec les assemblées ne prend pas la parole. bien sûr sauf dans son budget. bien ci doon ci dara. c'est parce que encore vous diabolisez Khalifa. non pas mhm. du tout alors mun naa ci tontu. ndax non bàyyi ko mu daaneel rek. comme da ngeen di diaboliser Khalifa loolu moo leen indi si moo di si le parti socialiste. ceux qui sont avec vous vous ont poussé à faire encore le même acte sur leurs propres frères c'est ça la vérité. tiens d'accord le parti socialiste ceux qui sont avec nous mooy ñi ngeen àndaloon gouverner dans le cadre de la majorité présidentielle élargie. mais tu nous nous l'acceptons. bu amoon tey ñu dellu ci si. alors maintenant. ci li ñu wax. ci li IGE yaa ngi xas sa gaañ ah. non xasuma kenn dëgg laay wax. Ah. dëgg mais dañu dañu jaroon àndal weesu na waaye parfois dafa baax ñu koy. fàttali mais dañu jaroon àndal moo tax ñu ànd ak ñoom. alors mhm. comme da nga dugg ci problème mu recommandation wu IGE xam nga ko. inspection générale acharnement bi ci xalifa aussi ah acharnement moom moo ko wax amul benn acharnement parce que d'accord d'accord ak propos yi ci Mbaye Ndiaye yëkkati woon euh, wax ko 2009 2009 dans Dakar Alliance pour la République dafa deme coalition bu tudd Dekkal Ngor ba ñu demee ba am as tuut suñu for coalition yooyu yëpp Dekkal Ngor dañ ñëw ànd ak Benno Siggil Sénégal 2014 la ñu àndul 2014 la ñu àndul parce que ba 2014 coalition bi doon gouverner ville de Dakar Benno la woon bi ñu àndul ñu dem élection ñu gagné ñu dans les dix huit communes. Mhm. ñu gagné benn commune cote. muy muy Yoff ak muy Yoff waaye. dëgg boo xam ne APR moom moo ko jiite. mbir mi du mbiru politique daf leen di jëriñ tey ngeen langaamu ci loolu di wax waxu politique la mais yaa ma gën a xam régime d'avance naka lay fonctionner du kees bu ñuy ñëw jox nit procédure la boo xam ni dañu koy tegal une autorité. Mhm. ne ko bu fekkente ni danga bëgg gaawal dépense c'est-à-dire dootoo dugg ci circuit wu mhm. engagement mhm. ordonnancement liquidation bi nga xam ne dafay gudd mhm. nga jaare ci procédure waaye boo bëggee jël ab pàcc ci rythme bi nga xam ne moom lañu ñu d'accord faw nga indi ay firnde yu weer d'accord donc liy wax ji liñ ci for mooy firnde yi ñu joxe pour jël xaalis bi moo nekkul firnde yu weer waxuma montant waxuma lan firnde yooyu moo nekkul firnde yu weer te ña fa nekk ñëpp firnde yooyu lañ doon joxe mais taxul firnde yu weer beneen bi lu tax nga mën a ni dafa nekk pour procès politique te nga xam ne ñi ñu dugal ñëpp ñi nga xam ne du moom kott lañ wax am na yeneen ku inculpé kooku ban parti lañ bokk kan moo leen tànn <laughs> ki tànn ay collaborateur am ensuite mais am na ñeneen ñu ñu bàyyi itam fi ñu jaar am na ñeneen ñu dugul kaso am na ñu dugg mais am na ñu dugul kaso aussi waaw gisuma ci politique ku mu neex nag yëkkati mais comme werante ngaa na dërëm ci perong mhm. yàlla nañu yegg ak jàmm ci procès bi yëpp leer. je suis ci loolu moo ñu jig bàyyi ko beneen bi it ma bëgg ko wax mu leer. Mhm. bu ñu yeggee ci procès bi dinañu xam lan moo nekk ci biir rapport bi dinañu xam lan la ñuy def ak lan la ñuy deful. Mhm. su boobaa li may ñaan ñëpp mooy nañ nangu ni àtte bi ñu àtte. justice su Sénégal moo ko atte te man yebuma magistrat wu Sénégal ba ma war a mën a toog man fii ci télévision bi di teg sama bopp fu kawe jàpp ni man dama am valeur dama am ngëm kenn mënu maa ger ba pare bëgg nangu ni keneen dinañ ko ger mm-hmm. waxaguma loolu non ah, d'accord non damay bëgg wax rek. crédit bi ñu war a jox justice bi man waxaguma loolu. ci débat bi laa ko tibbee. Mm-hmm. du li nga wax man sénégalais yi laay waxal ak li may ah, dégg. ok d'accord mu bëgg ñu dégg ko bu baax. Mm-hmm. moo di li ñu jig jig ñëpp. mooy nañu dem ñu atte atte bu leer. d'accord. donc jarul ñuy wax. d'accord alors léegi président Doudou Wade yaakaar nga àtte bi ñu am ci lu leer àtte bii nga xam ni moom la ñu jëm ak. Euh, waaw xam nga àtte bi ak Khalifa Sall. d'abord am na ñu ci am jaaxle sax tey ci suba. Mhm. seen bopp wëlbatu ko na ci ci diggante changement bi am te kenn xamul lu tax mais am na changement ñoom nag ñoo am droit def changement yi mais li ñu mën a jàpp ci justice su tey. Mm-hmm. et puis su may wax man waxuma ne magistrat yi nangam magistrat yi nangam mais war naa mën a nettali li ma dégg magistrat yi wax ko. loolu dëgg barki démb ci mujj. waaw ah, waaw ci seen conclave. parce que bi ñuy def seen dëpp moom loolu la ñu seen bopp d'indépendance tey fi ñu àgg tey. waaw ci seen bëgg-bëgg yu yàgg. manque d'indépendance fi ñu ci àgg tey. Mm-hmm. ci génne président de la république. ak le ministre de la justice sur le conseil supérieur de la de la magistrature Seydou il faut que ñu nangu. ne tey mësuñu àgg fii. dinaa ci ñëw. nañ ko nangu ñoom ñu koy liggéey ñoo ko wax dinaa ci ñëw ñoom seen bopp ñoo ko wax donc magistrat yi seen bopp ñoom seen bopp jiiñante nañu corruption. Mhm. avocat taxaw na fii. waaw auxiliaire de waaw. wax ne magistrat yi. Mhm. dañ leen di jënd. Mhm. tout à fait. magistrat yi ne amuñu. yàggali yàggali li ci topp. yàggali li ci topp. lan. ba mu ko waxee jéggaluwul. non dama lay laaj rek. Oh, jégalu na moom kon nag jeex na mais man léegi laaj génn rek wax wax bu a wax dana jégalu. jeex na mhm. que na ko waxee. moo rafetlu wax mais dëgg la wax mhm. bul jiiñ loolu. c'est pas non jiiñu ma dama xaar tate ci li nga indi. Seydou bàyyi mu terminer rek jégalu na moom loolu man nangul naa la. maam Adama na waaw. comme yow comme man ñoom yéen laa yemale. waaw xam nga loolu ci man. mais dama ne nit ku respectable et respectueux. Mhm. du kuy jaay boppam. du kuy transférer boppam. mais jégalu na mais jégalu na léegi mais jégalu na. maintenant ci procédure bi nga wax xam nga. Mhm. da ngeen di jaawale très souvent. waaw ni ñuy def pour génne xaalis man li ma intéressé. Mhm. mooy xaalis bi pour lan la woon. Mhm. d' accord na ca xaalis bi dépense diverse la. maire bi moo ko moom. arrêté yi ko doon réglé. bu ko jëlee ci ministère de finances. maire bi moo ko moom nga wax de. waaw dañ ko ko jox. mais moo ko moom nga wax. moom la ko jox. comment. mais pour nga moo ko ma xam. depuis Ngalandoo Carpo ba léegi dañ ko koy jox mu ci def ni mu ko ni mu ko bëggee di ci jox nit ñi di ci dimbali nit ñi. d'accord di ci faj ay nit di ci dem ngénte di ci dem dëj. ok buy dem ngénte. Mhm. du laaj ordonnancement. buy dem dëj du sëriñ du taalibe du maître. du sage-femme du jaaykatu ganaar du jaaykatu xar du sëriñ du du du du du responsable gàmmu c'est clair du kenn ci ñoom ku ko mën a weddi d'accord moom xam na ko kon procès ba kon procès ba mu dina bari témoin am na ñu bari bàyyi ko mu rek donc loolu mhm. am na d'accord alors dépense boobu nag ñu ngi koy génnee moo tax ñu utal ko régie d'avance régie boobu ñu ko dugal pour loola parce que ma mhm. mënul jaar fi mu war a jaar yëpp kuy dem dëj ku daanu léegi tànk bi ñu war ko defar ku war a dem ngénte gàmmu gi war a yow samedi 15 jours boobu xaju ci moo tax ñu utal ko loolu ñoom nag dañ ko doon génnee mhm. ndax aw na yoon wala awul yoon mais xaalis ba fa mu jëm foofa moo doon demam d'accord léegi bu awul yoon ki ko def jàpp nga ne ñu ko teg ci yoon mais amul kenn kuy def lu dul yoon te dañu lay teg ci yoon ah, loolu loolu mooy wax ci nag ko d'accord naa ci loolu mais mu ne mhm. xam nga lu tax ñu yëpp ñu teg ko ci yoon tey waaw mooy waxu Mbaye Ndiaye ja déet ak li mu yor daf ko jaaralewul ci yoon aussi. non non gis nga euh, mën naa ci ñëw tuuti ma ne. soo ma mayee ma ne s'il vous plaît. Seydou rek bàyyi ko mu daaneel waaw. billaahi laa wax. waaw. am na téeméeri maire à peine. waaw waaw ma ne. mais loolu loolu du raison li ngay wax ni tam. ma ne xam nga téeméeri maire yoo xam buñ ko defee dañ leen di. non mais ñu ma jox boobu argument. waaw mais xam nga. nit ay nit bu ñu àndee. Uh-huh. bu fekkee ne li ñuy wax équité. waaw ñëpp dañuy def lenn lu bon. boo jàppee kii. da ngay jàpp ñi sees mais doo ko def rek comme waa ji. d'accord bien ko koo jàpp kuy tux yàmba. ma ñëw dóoral. d'accord mu dajeeg papa mu papa commissaire muy tux yàmba. mu dóor ko bi dàqu. d'accord ma ñëw sotti. alors Seydou. Euh, Doudou d'accord ma ak yow. xaalis bi meer bi moomu ko. population yi ñoo ko moom. ah jeex na ah, moom lañ ko dénk. <laughs> lañ ko dénk aussi. Ah, moom lañ ko dénk dénkaane boobu. waaw il faut que ñu dellu fenn. Mhm. xam nga ni collectivité locale yi ci budget bi lañ leen di am pàcc bu ñu leen jagleel. waaw mhm. parce que ci sunu système décentralisation dafa am loo xam ne constitution moo ko teg. Mm-hmm. léegi bu fekkente ni dañu jox régie d'avance bu fekkente ni lu la neex na ngay def lu tax ñu lay wax pour nga indi facture pour justifier. Mm-hmm. bu fekkee ne lu la neex ngay def jarul justifier donc amunoo ci def lu la neex. d'accord da nga koy teg ni ko yoon santaane. Mm-hmm. boo ko deful ñu teg la ci yoon. boo ko deful ñu teg la ci yoon. waaw ah c'est aussi simple que ça grand. waaw ah, mais bu ñu la tegee ci yoon itam nañu fexe ba sa àq ak sa yelleef. maintenant bu baax a baax. si nañu ko respecté mais bu ñu la bundu xatal. dafa am li may bëgg a wax na wax na équité. voilà euh, li ñu am comme information. ci li nga xam ni moo ruuse ci loolu. am na yeneen collectivité local yoo xam ni IGE jaar na fa. Mm-hmm. lañu fa gis la mu méngool. du ñu war a dem ci procédure pénale mhm. discipline budgétaire lay jaar wala <laughs> ah, donc loolu am na ci te IGE boo xamee yow yaa ma ko gën a xam parce que ku e, e, yàgg li ruuse ci loolu yow yaa ko xamoon xaw ma ko non dama lay wax rek Seydou tu as vu dama lay wax tu as lu moi je n'ai rien lu tu as vu waruma ko lire <laughs> li ma dégg mhm. xam ko mhm. mooy li ma la ci wax te rapport IGE yi may lire man xam nga yan laay am chance ba xam nu mu structuré mooy rapport UG yoo xam ne bu passation de service amee nga koy lire te rapport yooyu souvent recommandation da ciy ne bu amee procédure boo xam ne ci biir ministère bi mhm. jaarul yoon waaw ñu joxe ay tegtal mhm. daal di joxe seen rapport mhm. président de la république jël instruction yi jox ko premier ministre pour ñu régler problème yooyu. d'accord delloo ko ministère yi. Mhm. ñu jël disposition yi. Mhm. soit modifier organisation bi. c'est bon c'est loolu baax na aussi ñu xam ci recommandation yi. donc recommandation dafay am. Mhm. mais bu recommandation. waaw ne lii tey na xel. ba war nañ ko jox justice mu leeral ko. bokk na ci recommandation. d'accord du dëgg. parce que ci état bi ñu nekk. mooy état de droit. d'accord état de droit. mooy am na loo xam ni. kenn kese la ñu nangu muy justice. mais moo mën a teg Doudou Wade tuuma. waaw moo ko mën a jël Doudou Wade. defal ko mais na fekk justice boobu indépendante. justice na bi moom boppam mais munuñ. li mais dama ne est-ce que justice bu indépendante mooy nga jël sa conseil juridique. def ko ministre de la justice. est-ce que loolu mën na dal xel. jël sa conseil juridique. ki nga xam ne depuis boobu ba léegi moo lay conseil ci lépp lu jëm ci wàllu justice. nga jël dama bëgg justice bu indépendante. parce que man li ma jàpp. est-ce que loolu dal nga ko itam. naa bu baax dégg a baax mhm. ñu delloo ci li nga xam ne Doudou Wade mii moom moo ko gën a xam. waaw muy les théories constitutionnelles moom moom moo ko gën a xam. ci wàllu séparation des pouvoirs. waaw justice bi ak exécutif bi. ci sunu système bi ñu am. loolu moom la tradition bi am sister bu kenn mënu ci dara. moom mais au moins nga lu lu a rafet sax. lan mooy lu ñaaw lan mooy lu ñaaw. koo xam ni yow mooy sa conseiller juridique pendant des années. mais du sénégalais. attends na nekk sénégalais bu na. voilà bon d' accord président nga baal ma ñu dugg ci beneen wàll. parce que dafa am coow lu fi am mu tukkee woon ci ancienne premier ministre Aminata Touré mu jëm ci deux cent milliards yi mu wax ni moom sax après ci calculam rombale na ko foofu jàpp na ni ëpp na loolu mu tukkee ci track bi gannaaw loolu dégg naa benn communiqué boo xam ni le ministre Seydou Guèye d'ailleurs moom moo ko signé sax indi ci ay leeral ci wàll boobu au lieu de deux cent milliards mu nekk cent cinquante deux et quelques euh, milliards coow loolu nga xam ni jóge na ci traque des biens mal acquis tukkee ci ancienne premier ministre de la euh, république ancienne ministre de la justice aussi Aminata Touré euh, président bi nga ko déggee ndax jàpp nga ni loolu lu lu ñu mën a jàpp la wala li tukkee ci gouvernement bi moom nga gën a téye. waaw dafa am évolution. Mhm. parce que Mimi bi ma déggee déclaration le 19 dafa ma bett. Mhm. te mbetteel bi ak jaaxle ji ma ci amoon moom mi Seydou moomu ko teggil. Hmm. waaw man maa dama tiit jaaxle bi ma gisee premier ministre bind. ma dem ci télé télévision Walfadjri. Mhm. ak Moustapha Diop. ma ne ko li mu bind ne moom la wax li ko commencé cent millions AIDB yi. Mhm. ba si quarante sept mille Aïda Ndiongue yi premier ministre waxul dëgg. Mhm. xaalis bi jotu ko. c'est je suis il faut nga ne waxul dëgg moo tax ma dem mu ne dafa jóge ci CREI mhm. enrichissement illicite amul mais heureusement Seydou ñëw sauvé ma jox ma ay preuve ne jógewu fa ci communiqué Mhm. te loolu duñ ci am jafe-jafe mën naa la wax lan la premier ministre wax. Mhm. ci gàttan premier ministre dafa wax ne ci li mu këyit gi mu génne looloo tax Seydou génne communiqué. Mhm. bu premier ministre waxul lool moom du génne communiqué compte communiqué moom c'était pour rétablir la vérité. ak it génn bu ngeen génn yéen opposition. waaw waaw c'est normal. <laughs> xam naa ni loolu sax moo gën a génne Seydou. waaw c'est normal Seydou sax xam naa ne ah. dafa dem au charbon rek. mais am na ñeneen ñu amoon aptitude. ñi nga xam ne xaalis bi seen loxo laaw bi du génne ñoom amoon nañu droit pour wax ko mais Seydou xam naa ne dafa mënul noppi. Ah, du koy ànd ak nit ba pare porte parole aussi. waaw waaw porte mais dafa am am na moment boo xam ne c'est le ministre des finances wala du budget mooy ñëw ci kanam moom ñoom ñaar seen responsabilité dañ ko daw. Ah c'est un garçon très courageux maa la wax loolu. Mm-hmm. alors xam nga lu mu wax. Mimi mu ne cent milliards ci AIBD. Mm-hmm. pour ma gàttal Seydou bi mu tontoo moom cent milliards yooyu gisu ko. Mm-hmm. parce que waxu ko woon te gisu ko. mu ne 37 milliards ci DP World. Seydou génne 24 milliards 600. li Seydou génne nag man xam naa fan la ko jëlee. moom xam na ne 24 milliards yi. DP World bokkul ci enseignement illicite mu génne cinquante millions HH. Seydou ne gisuma loolu. mu génne quatre milliards cinq ci appartement Oren Od Seydou bindul loolu. mu génne huit milliards cinq milliards de francs ci Jaber. Seydou génne deux milliards quatre cent quatre vingt dix huit mille trois cent quatorze mille cinq cent xam naa fan la ko jëlee jóge mhm. tudduñu sax Jaber Sonacos la ñu tudd. Mhm. cession de plus-value d'immeuble de la Sonacos mu génne 8 milliards ci Karim Wade Seydou ne zéro mu génne 3 milliards tay Taïbu Ndiaye Seydou ne zéro mu génne 47 milliards ci Aïda Diop Seydou ne zéro mais Seydou na génne na 11 millions 365 mille 450 11 milliards ouais. ci li Millicom mhm. génne 39 milliards 520 mille génnewu ko en recette exceptionnelle mu ngi ko génne ca loi de règlement 2012. bi ñu génnee en 2014. donc loi loi de loi donc gisuñu traçabilité rentrée xaalis boobu mais won nañu ne dugg na foofu feeñ na fa ca loi de règlement bi duma ci sori mu génne dédommagement mutuel 45 milliards ak 5 milliards ak 25 milliards ngonte bon ñaar moo mën a am. Mhm. Mimi Touré moom Seydou Gueye weddi ko. Mhm. te premier ministre moo ko waxloo mu weddee ko nii. moom Seydou mi waaw waaw mhm. Seydou ci sous ordre. Mhm. donc ñu jàpp mhm. ñaari kilifa. gouvernement bi ci boppam. ak kii ci boppam wuute nañu ay chiffres mais xam nga boo soree sori tuuti. da ngay jàpp ne Abba Jaber bi. le 3 août 2013. Mimi Touré moo ne jot na xaalis bi journal bi quotidien la. man nag ni mu def ba génne 5 milliards moom Seydou génne cent milliards 480 te Seydou wax na dëgg mu ngi ko jëlee ci loi de finances rectificative bu 2013. fa la ko fekk wax na ci dëgg. parce que loolu mooy xaalis bu wóor. kon li des ci 5 milliards yi moo la jaaxal. waaw moo ma jaaxal. d' accord merci beaucoup mais parce que. waaw dinaa ci dellu si. d' dafa am beneen bu dee mais di ngay jàpp daal. Mhm. ne premier ministre Mimi Touré. waaw mi démarré track bi. Mhm. moom ba léegi nii ba ëllëg. Mhm. ba gannaaw ëllëg li mu wax ne moo génn ci track bi ay la yéwén. Mhm. bu ñu yaroo tuuti rek dañuy wax ne waxul dëgg. d'accord ñu kon ñu yaru rek. jërëjëf léegi Seydou. waaw man sama laaj ci wàll boobu mooy chiffres yi ton yi nga tontoo. chiffre Aminata Touré parce que moo la tax a jóg aussi ci sa communiqué. ndax loolu mën nga dëggal sénégalais yi ne ci traque des biens mal acquis la bàyyi ko. Euh, parce que loolu moo amal nit ñi solo itam. dañu leen wax traque d'accord naa ak yow xaalis bi la ñu bëgg a wax vraiment Seydou. nga jàkkarlook sénégalais yi nga argumenté leen ko ne leen bi ñuy topp ñii ci alal julewul lii la ñu jël ci ñoom te nii lañ ko jëlee. alors li may indi ci tontu yi euh, tontu premier ministre Aminata Touré taxul jóg gouvernement bi. ah déet waaye itam gouvernement bi di ko tax a jóg. non mais bu loolu waaye itam mooy wax ak sénégalais yi wax leen. non lu yëngu am na lu ko yëngal. parce que gouvernement mais d'accord nga ni lu yëngu am na lu ko yëngal. gouvernement ah. yëngalee day xam fan mooy lan mooy enjeu bi enjeu bi du tontu bi mooy leeral. sénégalais waaw mais d'accord noo ko tuddee baax na. Euh, beneen bi ma jàpp ni gouvernement bi communiqué bi mu génnee waaw bi waxul waxu tract ci communiqué bi. <laughs> tract du co du concept bu gouvernement wu président Macky du di <laughs> mën nañ ci d'accord. da koy prôné mais du koy utiliser. prôné wuñu ko. Eh, mosu ko utiliser si non non non bul ne gouvernement Macky Sall gouvernement président dafa am benn option bu ñu xamee track dégg ko ci dañ nañ rek ah, inshallah amul problème donc dafa am ñaar mooy conceptu bonne gouvernance transparence reddition des comptes lutte contre les deniers publics mu nekk ay orientation politique communiqué gouvernement bi boo ci demee ba ci paragraphe 3 di nga jàpp ni am na ay action yoo xam ne mi ngi jóge ci ay contentieux ay somme yoo xam ne ci contentieux mhm. yu gouvernement Sénégal dénoué favorablement d'accord ci intérêt askan bi lañ ko. mais loolu mooy logique aussi. voilà moo normal. donc tey jii loolu moom. bu fekkente ni. loolu lu ko ci indi sax laa xamul li sénégalais yi. lu ko indi ci li sénégalais yi war a xam xamul man vraiment. li sénégalais yi war a xam. waaw mooy ci cadre politique boobu. d'accord bonne gouvernance transparence muy mën a nekk tey ci li ngay wooyee trac. Mhm. bu subaa mu mën a nekk ci li ñuy wooyee lutte contre le des ak yeneen composantes. Mhm. fii ñu toll nii. Mhm. ci li nga xam ni dugg na ci gafagak réew mi. waaw cinquante deux milliards la tolloon. mais ça n'a rien à voir ak trac. cent cinquante deux milliards mais mu leer aussi mais amul laalewul dara ak trac. trac boo gisee bu ñu duggee ci concept trac. d'accord c'est-à-dire que trac du dem foqati. Mhm. booy dox ci base loi bi ñu ko defee muy enrichissement illicite. Mhm. faw nga sukkandiku ci une décision de justice. Mhm. pour mën jël ni. lii may jiñ dudwaat ni daf ko jël sa lewul d'accord justice bi àtte na wane na ni lewul d'accord nga war koo mën a jël nag waaw ci procédure yi waaw war koo mën a def ci état bi lu rate ci lu mel noonu am nay kër mhm. yoo xam ne jël nañ ko évaluation bi pareegul ba ñu xam ci ñaat la toll ci alal. ak ban juridiction. CREI wala ban juridiction am na euh, ay ban juridiction c'est important. ak ban juridiction décision yoo xam ni. mi ngi rote ci juridiction wu CREI bi. loolu moo loolu mën nga cee boole. Mhm. mën nga cee boole. Mhm. amende financière yi ñu teg. waaw ñëpp ñi nga xam ni condamné nañ leen. d'accord te jotaguñ ko te jotaguñ ko. Ah, d'accord donc loolu mën nga ko consigner. ah d'accord mën nga consigner li nga xam ne nangu nañ ko. Mhm. sur la base de ces décisions. d'accord te évaluer leen. Mhm. dugaluñ ko ci patrimoine bi. d'accord yooyu mën na ci dolleeku. Mhm. lépp li nga xam ni société la woon. ba nga xam ni mënunoo ko valoriser. ba dugal ko tey ci créé bi lu mu dugal tey. li am solo ci ci ci moment tey bi ñuy waxee nii. ñi ko war a wax. waaw du sa du du. lim na leen léegi kenn jiituwu la ci. porte parole du gouvernement man porte parole. bu ñu liggéeyee ba ni ma lii mooy position gouvernement ma gàddu ko jël ko mais ñi nga xam ne ñooy encaissé mhm. mooy agent judiciaire de l'État ministre de l'économie ministre du budget ni mu ko waxee mhm. ñooñu ñoo war a mën a def le point d'accord te defaguñ le point bu ko jot bu jotee dinañ def le point li am solo fii ñu mhm. toll nii mooy ñu jàpp ni Sénégal de am na ay contentieux yoo xam ni tax na askan wi jàkkul alalam. d'accord parce que bu ñu leen toppoon. Mhm. ci contentieux yooyu xëy na askan na ci loru. Ah, ñaareel bi it na ko def. waaw ñaareel bi ñaareel bi it ah, li nga xam ne bëgg naa ko bëgg naa ko wax. waaw ñaareel bi état bi yàgg na dem ci contentieux mais yàgg na ko perte ah. boo mënee jàpp rek ni diggante 2000 ak 2012 mhm. bëggoon naa Doudou Wade wax ñu tey ci wàllu contentieux bu Sénégal gagné lan moo fi dugg. Mhm. ci alal boo xam ne nangu nañ ko te sénégalais yi moon ko. Mhm. donc baax na. bu ñuy méngale ñu méngale loolu it. c'est loolu. war mhm. a a bàyyi xel nag ni. politique gu bonne gouvernance ak politique gu lutter contre bien biens ak acquis. réew yi ñu ëpp doole. ñun Sénégal entamé nañ ko mais du sotti ci benn fan. liggéey bu gudd la. li ñu war a jàpp. mooy montant bii ñu wax. te duudu indi firnde yi te mu jaar ci ay document yi nga xam ne budget la moo xam loi de finance la moo xam loi de finance rectificative la wala loi de règlement mooy cadre bi nga xam ne lépp lu dugg ci alalu askan bi foofu lañ si mën a jaarale te li nga mhm. xam ne war nañ ko remarquer mooy amul lënt-lënt yépp am na traçabilité ci loi de finance diggante 2013 ak 2015 waaw président Doudou Wade ci lu kenn mënul dindi mooy condamné nañ Karim Wade amande nañ ko 138 milliards yu mu war a fay askanu Sénégal mhm. loolu traque bi moo ko indi mu joxe ko ak mu ñàkk ko joxe amande nañ ko ko ne nañ ko ko war na ko joxe loolu mën nañ jàpp ni euh, lu bàyyi ko ci traque bi la te loolu itam lu ñu war a mën a apprécier la alalu réew mi la. Pape waaw fi ñuy jógee ci waxtaan wi léegi. Mhm. ñu ngi jógee ci wax yi mu tëree mu jot nañu xaalis. sànq non loolu xam nga. dafa nànk rek xam nga <laughs> waaw jot nañu xaalis xam nga réew mi bu ñu jotee xaalis. te ñoom ñëw pour leeral. Mhm. bu ñu ko waxee war nañ sa xaalis mu aw. dëgg la waa xa damay loolu dinaa ci dellu si mais dama gën se c'est dafa wax ne. Mhm. mu ngi jóge xaalis bi. ci ay contentieux waaw. yoo xam ne dañ ko régler favorablement mhm. Seydou déedéet. Seydou yow bu osé nga xaal xool ma man wax ma ne quarante cinq plus 5 plus quinze milliards yow foo yëgee ne ñun demandé nañ ci 2500 milliards. nga weccee loolu. <laughs> Ah, contentieux bi de loolu la woon moom. waaw mais contentieux bi loolu foo ko teg sa yoon nekku ci. foo ko teg sa yoon nekku loolu lañ demandé woon ma te sañ nañ ko. ma ne vraiment je ne comprends pas. mi ngi mel ni rek. ngay ngay fase sa soxna rek. mu laaj la cinquante milliards. waaw sañ na ko. sañ na ko waa ah, sañ na ko waaye nag da ngay xam loo xam ni am na looy mën a sañ. ma ne ak lu jaadu ak lu jaadu. d'accord kaay ma wax kaay ma wax lu ci xew. d'accord dinaa la wax lan moo ci xew. xam nga lan moo ci xam dama bëgg nga ne. même bu dee 76 milliards. ngeen jël quinze yi defu leen ko favorablement à l'intérêt du Sénégal. dafa am lu nekk ci suuf. waaw loolu de moo graaw moom. man lu ci kaw rek lay xam man waaw xam nga li ci suuf mooy lan. il faut que ngeen wax ñu décaissement 75 milliards ñaata ngeen ko jotee. jotewu leen ko ñaari yoon ñetti yoon ñaar ngeen ko jotee cinquante ak 25. mais jot nañ ko waaw cinq waaw defal nànk jot nañ ko cinq bi lu ko tas jot nañ ko lu tas cinq ci réew mi waaw jot ngeen soixante-quinze yi kon nag alhamdulilah mais soixante-quinze yi dafa tax cinq milliards réer ah kooku nag yaa ma koy xamal man maa la koy xamal léegi Seydou ah. xam nga lu tax wax la cinq milliards yi dafa réer Seydou communiqué bi yow yaa ko bind mm-hmm. yow Seydou yaa bind communiqué bi le 26 mai 2014 nga wax ne que am na ay recherches additionnelles. Mmh. le 26 mai 2014. waaw le conseil des ministres s'est réuni exceptionnellement ce lundi 27 mai 2014. Mhm. yow la ngeen jot xaalis ci xaalis boobu cinq milliards a ngi ci yoo xam ne mu ngi jógee ci xaalisu. Euh, Arcelor. non pas Arcelor. Euh, nu mu tuddati bi kii bi euh, système de euh, modernisation affaire carte d'identité yi ak yooyu cinq milliards président demande neen nañ ko dugal ci loi de finances rectificative 2014 mhm. ba léegi gisu leen ko ma interpellé leen ma bind premier ministre lettre tontuwuma ma bind ministre de finances tontuwuma ma bind président de la République ñu titré fii. 5 milliards porté milliards yu ñuy wër. boo ko gisee ci benn loi de finance gisuma ko da ngeen lekk cinq milliards remplacé ko cinq milliards. da ngeen jël bukki ma ma tontu ci. <laughs> Mhm. bu ma jëlee ci communiqué bi ma bind. 2014 ah. bi ngay wax. Mhm. du ma porte parole gouvernement ci gouvernement bi laa bokk dama koy assumer. mais ah. binduma communiqué bi parce que du ma porte parole gouvernement. Mhm. maa ngi ko nekk 2015. pour mu leer. mais dama koy assumer parce que ci. d'accord loolu kay boo xoolee gis naa fi benn montant mooy seconde loi de finances rectificative pour l' année 2014. ci communiqué bi mu bind. Mhm. gis naa fi 5 milliards de. la. ci communiqué bi ma bind mi ngi nii. te kañ nga ko bind. communiqué bi maa ngi ko bind le 28 décembre 2017 mi ngi nii. 28 décembre seconde loi de fin bërkaati démb. d' accord de finances rectificative Ah, jërëjëf cinq milliards a ngi nii Pape Ngagne loi de finance 2014 seconde loi de finance rectificative pour l'année 2014 inscription d'un montant de 5 milliards. mën euh, nga ko may dudu dafa lànk rek de finance 2014 rectificative baa ngi nii. 5 mhm. milliards nekku ci. ci li ma gis. Mhm. man yoruma communiqué. loi de finance mais lay moom laa lim ci communiqué bi. waaw non bi moo ci nekkul. seconde loi rek la def. mais loi bi c'est important. ñaar la. Sénégalais ñuy déglu dañ seeti loi bi dañ ko gis. d'accord communiqué bi ma may en tout cas jege na aussi ak 25 milliards. milliards ci beneen loi ci beneen séquence la. bul ko jaxase. waxuma xam nga waxuma jege na 25 milliards laa bëgg wax waxuma 5 milliards u ArcelorMittal yi en mhm. naa ko dama la ne moom jëlee bukki suule bukki. Ah, man bi ma lay laaj ngi nii bokkul. ma tontoo ngi nii. Ah, baax na. <laughs> c'est Sénégal 2014 la. nous demandons aux inspecteurs du trésor xam nga da nga junj ne gisuloo ko man ni la mi ngi nii. jox la firnde nga wutaat beneen nous demandons aux fonctionnaires. Mhm. di leen fàttali ne. code de transparence bi dafa wax ne ku ci gisati lu mel nii te waxuloo ko tu es passible de prison code de transparence boobu mu nga wartee mën a mottali hmm? mais yàgg na ci tiroir yi président Macky Sall moo ko fekk amal ko ñu adopté ko du dëgg da nga juum. non juum xam nga da juum. Mm. code de transparence bi mu ngi jógee c' la décision neuve de l'UEMOA. mais bien sûr. dafa nank rek ñu war ko transposer. balaa nga koy transposer da transposer ba pare la loi organique portant loi de finance. bi ñu voté en juillet 2011. ah mooy loolu bi élection yooyu fi jar. mais fii lañ ko fekk de. waaw d'accord non mais li ngeen fi bakkan ak li ngeen fi fekk dindi moo lay won ne. loolu ñu fi ma ne indi yokk ma ne mën ci woon def dara parce boobu dafa am yu bare yoo xam ne dañ ko fi indi ma ne loi de finance bi nga xam ne moo war a créer ñu dem en 2017 sur les lois programme te premier c'est la LOF la loi organique portant loi de finance ñun ñoo ko adopté Seydou ci turu Sénégal waaw waaw d'accord Macky Sall ko ci turu Sénégal waaw d'accord naa ci déglu ma rek d'accord naa ci mu am charnière bu ci a topp donc bopp boobu li ci des ngeen àggali c'était normal bu loolu amuloon du mais dama ne loi code de transparence après la ñëw déclaration de parrainage après la ñëw parce que loolu moo ko santaane li ko santaane du fi nekk lu fi nekk mais dama la yëgal ne ci loolu nga wax léegi nii dama lay fàttali ne jeex na dañuy tàggoo malgré sa mhm. le premier er juillet 2017 mhm. démarrage de la loi programme dans les pays de l'UEMOA mhm. da ngeen am incapacité pour àggali ko parce que ba léegi dugg kooku ci ñëpp ko bokk. d'accord ci ci ci lu mu julli rek deux cent milliards yi ci deux cent milliards yi laa bëgg ñu taxaw ci ak euh, sortie bi nga xam ne parti démocratique Sénégal def nañ ko ci. Euh, jëm ci porter ci plainte le premier ministre ba demander démission ndax loolu yaakaar ngeen ni war nañ ci mën a egg pour euh, transparence mën a am ci xaalis parce que le premier ministre a fait du faux. Mhm. a usé du faux. mais comment moom. waaw mais parce que li mu wax ne li mu wax li mu wax premier ministre bi. Seydou Seydou Seydou publier ko. waa xam nga Seydou dafa def xam nga dafa am liggéey yoo xam ne ci ci métier. Mhm. dafa jafe. dafay metti pour nit assumé ko. d'accord man lépp lay assumer Seydou xam naa loolu Seydou lépp lay assumer loolu léegi. xam nga fi nga dawee bu ma la gisee nga ñëw ma xam ne assumer nga ko te mën loo ko bañ assumé boo ko assumer la man mën naa assumer ko. ni moo waxee ne maam Adama assumer la parce que loolu laa gëm man damay assumer. bien sûr. Mhm. moi j'ai tout tout. ay si ñëwal ci PDS. donc ci deux cent mille xaalis boobu dama la bëgg wax rek Mimi Touré. doful jinne jàpp ko. li mu wax ne am na deux cent cinquante milliards. nañu seet beneen xaalis bu mu yëg parce que Mimi Touré waxul ak ñun ñii lay waxal. Hmm. bien. ah léegi porte plainte bi PDS nañ leen porte plainte premier ministre. ci communiqué bi nga xam ni génnee nga ko xaalis bi fan la jaar dafa war a leer te dafa war a démissionné moom ci boppam. waa non mais xam nga da bàyyi noonu rek. xam nga ay nit bu ñu la toppee naan la justice bi nii justice baaxul te lu ñu jaaxle rek ni justice bi ragal xeex politique ci terrain bi ba bu ko yóbbu ci tribunaux yi ba pare bëgg ni suñu justice baaxul. mën ay mag yuy contredire seen bopp duma ci wax. libre nañu nag daje dajale seen xam-xam mu jur tuuti loolu. Seydou te du am jeexital. weenu yaay lu mu lax-lax sa la doom dina am. wax nga dëgg nag justice lu mu bon bon ci lañ jëm. kon nag baax na. sant yàlla bi ñu amee justice boo xam ne ñëpp yaakaar nañ ci malgré wax yi ñuy wax. wóolu nañ ko te am nañ ci yaakaar bu ñu amee problème mu àtte ñu. jërëjëf kon nag ñu ngi ci état de droit boo leen ko confirmer rek d' accord. voilà Seydou lan mooy nekk sa mais kontaan trop. gannaaw ci waxtaan ak Doudou. parce que ragaloon naa waxtaan ak moom parce que suma mag la. Mhm. ñu seq lu bare nag. Mhm. waaye dañuy waxtaan waxtaan bu bare duñu gëj a déggante mu may wax loo xam ne tey jox na ma ci ak tegtal eh, am na ci ñoo xam ne ci dëkk bi bëggul warante ak ñoom moo tax bi may ñëw mu ne ma sama rak ñëwal dañuy waxtaan ma ko ci gërëm di ko ci sant yaakaar naa ni sénégalais yi dégg nañu ràññee nañu et puis yow gërëm la jërëjëf ci honneur bi ñu defal mhm. ñu tàmbali émission wu année bi ak yow mhm. waxtaan Euh, ma bu ci jàpp rek nii réew mi li ci président Macky Sall rek moo ko wax wax rek moo ci nekk. Mhm. ñun ñëpp ko bopp bokk. baobab la boo xam ni ay rasinam mhm. sax nañu. nañ leen ko suuxat ànd defar ko parce que démb yéen la woon tey ñun la bu subaa ñeneen la. Mhm. yàlla na fekk rek ndono biñ fiy bàyyil ñi war a ñëw nekk ndono loo xam ni moo gën a yaatu moo ëpp. di ñu jëlee ci yéen ñoo it di ko jox parce que loolu moom moo tax Sénégal di màgg di jëm kanam te jàpp naa ni loolu moom moo wund un Sénégal pour tous et un Sénégal de tous jërëjëf président waaw xam nga président ngi woote un Sénégal pour tous et Sénégal de tous et par tous moyen de tous mm-hmm. encore slogan rek Seydou mm-hmm. slogan yi dafay passé président dañ ko xam fu ñu ko doon xaar te du ñun rek sénégalais ñoo ko doon xaar et ils sont déçus. les Sénégalais sont déçus. nappkat ils sont déçus. ba bàyyi bàyyi ko rek mu eggale s'il te plaît tàggoo dañuy tàggoo si dommage Seydou boo bëggee ma wax la béykat yi. am Sénégalais dinañ am am occasion boobu président eggaleel s'il vous euh, président baal ma nga tàggoo rek. boo bëggee la ko ñaan rek waaw may ma s'il rek. wax ma fan lañ jaar rek ba def ay 1 million 400 000 tonnes d'arachide ak fan la ñu jaar ba def un million dix mille ton de riz. président baal ma nga daaneel rek si. bu mbay mi baaxuloon du ñu yegg foofu. xam nga bi ngeen fiy jógeeg léegi rek multiplier nañ ko par trois. nga def cent ak mille li ma jàpp rek moo ne le premier janvier dix dix sept di nga am autosuffisance alimentaire ma ne gaa yi man duma seet sax ñaata ngeen béy xam lu may xaar <laughs> dama dem ci port bi semaine bu nekk ma dem ci port bi seet ndegam ceeb a ngi wàcc. te ceeb wàcc na démb. day wàcc moom tamit ko leen dëgg. day wàcc bàyyi bàyyi bàyyi ko bàyyi ko mu euh, bu ngeen bu ngeen defee nii vraiment dana ko bàyyi maa koy terminé. waaw waaw non yaay sama xam nga ci da nga fa am loo wax. Mhm. dama ko bëgg a confirmer fii. Mhm. dama weesu fi ma toll par parloo. absolument dama accumuler benn capillage d' expérience boo xam ne bii du ko sànni. du ma ñëw dans n'importe quelle situation bi dama ñëw rek pour sénégalais yi xam ne ni mu turé li mu wax. Seydou Diouf weddi Seydou Gueye weddi na ko. jógu moon pour weddi xam naa ne jóguloo pour weddi. damay jóg pour mais ma Seydou li nga xam ne mooy. xam nga waa gars yi noo ko mën a tuddee rek baax na <laughs> waa ji dafa toog di wax tey la alxames. c'est compliqué de man bi conclusion moom. ñetti ñëw ne dépassé na ma quoi vraiment. dëggal nga ne. président dëggal nga ne président baal ma nga daaneel foofu rek si vous donc léegi d'accord voilà. maa ngi lay gërëm ci ci. voilà c'est important te ma jox la ko. jërëjëf ci waxu Mimi Touré. ngeen ma ci waxu Mimi Touré am na xaalis bu manqué Mimi Touré na mu ngi ñi ma waxal nañ ko tontu. d'accord alkaati du bàyyi doore grand bi de politique. jërëjëf mbokk yi mu nekkoon seen émission faram

vraiment ma recevoir leen ci plateau bi di leen jox rendez-vous incha allah alarba ba bële di ñëw bu ci yàllaande